maa ngi rafetlu bu baax ni cérémonie bii nga xamante ni ci lañ doon jëmmalee lii ñuy wooyee ci wolof jokkalan joxe ay lenge muy prise de commandement bi nga xamante ni dañuy jël drapeau national bi jox ko général de brigade Mamadou Ndoye bi nekk tey ci décret wu président de la république son excellence Macky Sall ci boppu brigade nationale des sapeurs pompiers maa ngi rafetlu bu baax mi cérémonie bii tëddee di féliciter ci turu président de la république Macky Sall général de brigade Mamadou Ndoye di wax ni bii mooy ñaareel bi yoon ñu gis ci boppu brigade nationale des sapeurs pompiers général boo xamante ni dafa soqeekoo ci biir euh, mbooloo mi nga xamante ni ñoom ñoo ko composé. ginnaaw bi ñu amee kii muy général bi fi jógee di Mor Seck loolu nag ràññee nañ xàmmee seetlu ni 1992 ak léegi am na liggéey bu rëy rëy boo xamante ni brigade nationale des sapeurs pompiers ni ngi koy doxal te dafa jóge ci groupement président de la république son excellence Macky Sall yéegal ko ci brigade loolu it liñ ci ràññee mooy mbooloo mi ciy liggéey lim bi yokku na waaye li nga xamante ni mooy jumtukaay yi ñu soxla te seen liggéey yëpp di taxaw doomu aadama président de la république Macky Sall tamit yokku na ko lu baree baree bari te loolu mën nañ koo ràññee ci xeeti oto mën nañ ko ràññee ci xeeti caserne yi nga xamante ni mi koy tabax fépp ci réew mi waaye mën nañ ko ràññee tamit ci loo xamante ni guléet mu am Sénégal bi ñu amee indépendance ak léegi mooy école boo xamante ni fa la ñuy former ñii war a liggéey ci brigade nationale des sapeurs pompiers moo tax fileeg biir bu gàtt ci njëlbeenu weeru février dinañu président de la république son excellence Macky Sall dina inaugurer école nationale de la brigade des sapeurs pompiers bi nekk ci Thiès waaye yamuñu ci loolu am na beneen école bu ñuy former sapeurs yi lu jëm ci wàllu ndox. ñu koy wax centre de nautique bi nekk Toubacouta waaye ñi nekk ci biir troupe yi ñu leen di wax les militaires du de la brigade nationale des sapeurs pompiers am na benn centre d' bu nekk fële ci Nioro boo xam ni tamit defar nañ ko loolu nag li muy firnde mooy diggante 92 ak léegi euh, diggante 2012 ak léegi bi fi son excellence monsieur le président de la république Macky Sall ñëwee ci bopp réew yi li mu fi fekkoon daf ko yokk yokkaay yaatuwaay boo xamante ni lépp lu amul woon. ci li ñu soxla ngir gën a mën a rafetal liggéey bi gën ko baral waaye gën a mën a rafetal formation bi def na ko ndaxte ci biiru fukki at lu amul woon ci wàllu tàggat loolu la fi indi indi fi école boo xamante ni officier sous-officier dinañ leen fa former indi fi école boo xamante ni dinañ fa former ñuy liggéey ci sapeur pompier ci wàllu ndox waaye indi fa ñi nga xamante ni ñoo nekk ci wàllu troupe yi loolu nag bu amee dañ koy kay sante te gën a booloo gën a jàpp jàpp ci liggéey bi et général bi nga xamante ne nag moo fi ñëw bees nekkul ci li ñuy wax terrain inconnu ndaxte laata muy doon commandant de la brigade nationale des sapeurs pompiers nekkoon na ci ginnaaw général Mor Seck di ko jàppale ci liggéey bi may rafet lu bu baax tamit teewaay fii ci cérémonie bi le général euh, chef d'état-major général donc des armées le général Cheikh Wade mais aussi di rafetlu. teewaayu au commandant de la gendarmerie nationale du général Moussa Fall ak teewaayu directeur général de la police nationale di Sidi Bokar Yàgg loolu moo doon kaddu yi nga xamante ni buggoon naa ko yëkkati wax ni nii la état continuité la général bi ñëw wax nañ li nga xamante ni moom moo bawoo ci président de la république jëmoon ci ñi mu war a jiite muy bis niki tey lépp lu ñu war a def war koo xool war cee taxaw ci ndigalam la war a doon loolu moo doon kàddu yi ma di sant di leen gërëm wasalaam